Donc en Wolof, vous me laissez libre d'apprécier de ce que je dis. Il pas de question. On est bien d'accord. Bon. kon boog mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen mbokki journaliste yi nga xam ni dangeen ngeen ñu teewee si suñu waxtaan bi ñu sampatee ci ngoon waxtaan bi nag mu jëm ci Sénégal li xew fan yi li xew fan yi mooy gis ngeen ni amoon na ay suñu mbokk yu bëre daan si li gën bëri sax ay xale lañu ñu jàppoon leen ci manifestation yee paase nga xam ni daaw jéeg daaw ak ren mi amoon na ci suñu réew mu indi fii ay jafe-jafe yu bëri ñu jàpp leen suñu force de l'ordre et de défense yi nga xam ni ñoom ñoo yor suñu kaaraange def ci liggéey bu mucc ayib te man ci tuuru gouvernement bi yépp damay sant di gërëm suñu force de défense et de sécurité ñoo nga xam ni bés bu nekk ñoo ngi taxaw ci suñu kaaraange bu ñu noppale ko ñoom la bu ñu nelawee ñoom la bu ñu liggéeyee ñoom la kon bokk war nañ leen sant di leen gërëm loo xam ni am na fu mu tàmbalee wande amul fu mu yem sant di gërëm tam attekat yi maanaam magistrat yi mooy ñi nga xam ni ñoom daanaka naka policiers yeeg gendarme yi noonu la ñu wéyale seen i liggéey taxaw ci temm def liggéey bu mucc ayib ba jàmm di mën a dellu si ci Sénégal parce que loolu su amul jàmm du mës a am te jàmm lépp ci la xej bu ma santee ñooñu ba pare ma sant ñi nga xam ni ñoo téye woon ñooñu ci kaso ba ñu woowee pénitencier yi ñoo ñit seen liggéey mu am si taxawaay bu rafet rafet boo xam ni dañ ko parce que nag nit ku dem li ñu woowee ndungu siin dafa di fekk ni boo duggee rek ñu yaakaar ni amuloo benn droit déedéet boo duggee am nga droit donc ñooñu nekk foofu ak ñoom dañuy seet nu ñuy lekkee seet nu ñuy tëddee seen lan mooy seen kaaraange di ci taxaw guddi ak bëccëg donc force de l'ordre et de défense de défense et de sécurité muy policier muy gendarme muy sax militaire bu ko laajee juge muy procureur muy juge d'instruction muy keneen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 Euh, Ousmane Sonko dañ koy bàyyi ndax Bassirou Diomaye Faye dañ koy bàyyi ndax ñi nekkoon bitim réew dellu si dañ leen di jàpp wala du leen jàpp li ma ci wax rek mooy lu gàtt la képp koo xam ni xool nañ sa dossier ba xam nañ ni yow yelloo nga ñu lay bàyyi ah kooku ala kulli xali nañ ko seet bu fekkee ni ndogal bi lool la dinañ ko mën a doxalee noonu mu wéy ñii nekkoon bitim réew nag ñibbisi ñoom it nañ xam ni yoon a ngi si seen kaw ndodd ndaxte nag réew mi ñu nekk réew mu yoon la réew mu yoon la du ku mu neex def lu la neex nga yaakaar ni tey ndegam ñoo ngi oyofal mbir mi rek ku mën ngaa ñëw di def lu la neex loolu mënul nekk ci Sénégal bii ñu nekk li gën a am solo ci wax bi mooy président de la République dafa woote jàmm ak sedd ci biir réew mi woote jàmm ak sedd nag du du ak lu waay neex def déedéet loolu Sénégal du mës nekk réew boobu woote sedd ak jàmm ñoo ngi ci liggéey di laaj ñëpp nañ ko jàppee ak xel moomu jàppe ko ak xol moomu ndax Sénégal rek a fi ne te ñun rek a fi ne te Sénégal mooy suñu réew amañu lu ëpp Sénégal amañu lu sut Sénégal te ñun sénégalais yi ñooy ëppaleel suñu bopp ñooy sutal suñu bopp ba suñu réew gën ci réew yépp yi nekk ci biir àddina loolu laa amoon di may wax di leen sant di leen gërëm wasalaam. merci madame la garde des Sceaux mesdames et messieurs les journalistes permettons permettez à madame la garde des Sceaux ministre de la justice et les officiels de se dans la salle merci.